ndax boo seetloo rekk njëlbeenu téere bi la ca dale bala ngaa àgg ca faslun fi tahaarati muy fa muy tàmbalee waxi mbirum laab dana fi leeral bu baax a baax li njëkk war mu kàllaf mooy wéral ak gëmam ak taxaw temb ci li farata ci moom ci wàllu xam-xam te mooy xàmmee faratay jëmmam ak lépp lum mu toll ci dundam rekk xàmmee ko loolu lay njëkk wax dana ca teg itam wax mu kàllaf ni mu war a saxoo tuub daal di waxaali sarti tuub ya ak lépp lu ci aju ba waxaali sax boo séqeeg doomi aadama yi ak tooñaange noo war a delloo tooñaange ga bu loolu la jàllee mu tegal na ca ñaari cër yi nga xam ne dañoo bari lu ñuy xëtt yoon te mooy làmmiñ ak bët ñoom lay njëkk a wax kenn ku ci nekk la nga ca war a moytu bu baax a baax muy sa làmmiñ ak sa bët dana jàll teg ci nag juróom-ñaari cër yëpp li nga xam ne moom nga leen war a sàmme bu baax a baax moytu cee mooy yàlla ko defee mu jàll waxit ni nga war a def ci képp koy bëgg ci doomi aadama yi yàlla rek tax koo ci bañ itam yàlla rek tax waaye adduna ba daray yëfi adduna du la tax a bëgg kenn du la bañ kenn dana jàll daal di wax nag mbirum al amru bil maarofi wa nahyu anil munkar maanaam digle ko aaye ak yi sartama yi demee noona daal di jàll wax nag ay mbir yoo xam ne yu araam la te mata moytu mel ni rëy ak ngistal ak fen ak rambaaj ak lu mel ne aaw maanaam naw sa bopp ak jëw ak jekki bañ kenn te yàlla taxut ak kañaan ak ndéggtal ndéggtal mooy def lu baax ba noppi di ko nettali ngir bëgg ku la ca naw baa ku la ca tagg ak yu noonu nga xam ne bu nett li woon lu baax na ngir sant yàlla rek ak ngir bëgg ñu roy ko ca dong moom du aay dana jàll nag wax mbirum fo xeeti fo yi ni mu demee ak itam lekk alali jaambur te xolam seddu ca dana jàll itam wax di wax ak aklu bi diini lekk alali nit ñi ci turu dañu wax lan mooy lan ak am daraja mën a tinu kenn ñu tin ko rek tax nga ciy laaj alal ak lu mel ni yeexi julli ba waxtu wa jàll te te mbokk ci bàkkaar yu mag yi dana wax itam lu mel ni ànd ak borom doole joo xam ne ragalul yàlla ni ki buuri adduna yeeg seeni jaraaf ak seeni dak nga xam ne ñooñu ànd ñoom day mel ne day neex ci adduna te war a naqari ca àllaaxira lool nag dana wax ñooñu nu ñu ànd ñoom ak sax ndax ànd nga sañes na koom déet ko defee dana jàll wax ni ab jullit war a xëre ci sàkku ngërëmul yàlla te bañ ko yemaleeg lenn ngërëmul yàlla bu mu ko jëndi mukk ngërëmul mbindeef maanaam bëgg lu neex mbindeef ba tax muy def mbaa muy wax lu naqari boroomam dana jàll wax ni nga xam ne mu kàllaf noonu la farlu ci lu xamul laaj ko ndax mbirum diineem sañu caa song dara te xamu ko su ko defee nag mu soññaate itam ci topp na bu baax a baax te sori lépp luy bidaa bu ay wax itam nit ni war góor góorgóorlu ci maandu ba bañu jëkk di tooñ kenn ndax kat tooñaa nga bu ëllëgee dañ koy delloo day metti lool lool loolu sax muy mujj ci njëlbeenu téere bi balaa dugg ci laab gi ma la waxan léegi yi mën a tudd yëpp daal fi mu toll nii mi ngi ci njëlbeen gi da ca dale ba ca faslun fi tahaarati nga xam ne kon daal moom lu yaatoo yaatu la da koy wax wax bu leer a leer ba nga xam ko bu baax a baax ba luñ ci war a moytu nga xam noo koy moytoo bu baax a baax kon nag aljawharu nafis mi ngi noonu fii la tàmbalee mubaarakul ibtidaai lii lu ñu tàmbali la maymunul intihaa'i tey lu ñu barkeeluk mat yal yàlla barkeel tàmbali bi lépp di barke ba ca mujj la bismillahi ci tuddu turu yàlla laay tàmbalee samay wax arrahmaani yàlla ki aji xéewli xéwli dijj ya arrahimi yàlla ki aji xéewli xéewli sew ya bismillahi rahmaani rahim mooy maa ngi tàmbalee tur yàlla mi nga xam ne mooy xéewle yi dijj ba tey mooy xéewle xéewle sew mbaa nga ne mooy xéewle xéewle matale ñëpp ni ki bu dee yu àdduna yi nga xam ne day xéewalaali sax ña koy weddee kay mooy arrahim nag mooy yàlla mi yërëm day xéewal ci àllaaxira ña gëmoon rekk rekk tàmbalee tur yàlla nag lu fonk la lool lépp looy tàmbali te du ak mooy rek danga koy tàmbalee turu yàlla wasalla yal na dool yi tedd nga allahu yàlla xalaa sayidina sunu sang muhammadin muhammad nabihi kalib yonanteem wa alihi ak ñoñam wa saxbi ak ay saxaabaam wasallama te mu dool leen wóolu tasliman dolli wóolu da cee teg julli ci yonante bi ne yàlla dolli teraanga sunu sang muhammad ak mbokkam ya ko gëmoon ak saxaabaam ya yal yàlla boole leen ñoom ñëpp teraanga ak jàmm allahumma yow buur bi aslih yal na nga yëwénal ummata muhammadin xeetu muhammad salla yal na dolli nga allahu yàlla alayhi ci moom wasallama te mu dolli ko wóolu allahumma yow buur bi farrij yal na nga wuññu njàqare moo yal na nga teggi tiis xan ummati muhammadin walis xeetu muhammad sàllaa yal na dolli tedd nga allahu yàlla alayhi ci moom wasallama te mu dolli ko wóolu allahumma yow buur bi irham yal na nga yërëm ummata muhammadin xeetu muhammad sàllaa yal na dolli tedd nga allahu yàlla alayhi ci moom wasallama te mu dolli ko wóolu sunu boroom xeetu yonent nga yéwénal seeni mbir sunu boroom xeetu yonent bi yépp yal na nga tegg seen tiis sunu boroom xeetu yonent bi yépp yàlla na fa leen boole yërëm xaw naka dana nu sàkku sa ndimbal yaa moyenu yow kii aji dimbalee woo bi ka teg yow rek nastaayinu la ñuy sàkku ndimbal sunu boroom yow rek am ndimbal te ci yow rek kat la ñuy sàkku ndimbal laa xawla amul benn xeetu pexe buy tee mooy wala quwwata amul benn xeetu kàttan buy tax a topp illa billahi ndari muy nekk ci yàlla al aliyi yàlla mi aji kawe al azimi yàlla mi aji màgg maanaam jaam amul pexe mu mën a jàpp ba tee ko mooy amul kàttan gu mën a sukkandiku ba tax koo topp na yàlla bëggee lu may lépp rek yàllaa ko koy tawfiixale waaye moom ci boppam moom jaam bi xamut mënut sañut xas bu naa doy nanu allahu yàlla wa ma te baax na wala wa ni'ma te amul moroom alwakiilu yàlla mi nu wakiirlu mooy rek doyloo nañu yàlla te yàlla ku doy la ku ko wekk say mbir wekk nga say mbir ku doy sëkk qaala wax na alfaqiiru aji aajo woo jëm ci yàlla ibnu xabibin kay doomi xabibullah ahmadu turam ahmadu bamba daa xamle boppam ne moom day dafa tudd Ahmadu Bamba Mbakke di jaamub yàlla boo xam ne yàlla rek rekk a ko ñor leneen ñoru ko muy doomi Habibullah fekk na Habibullahi nag maamam lu waaye jékki-jékki ne maay doomi diw te fekk diw moomee di sa maam yonente bi sax waxal na ko ne ana bunu xabatil muttalib wax nag mooy ahmadu danaa sant rabbal wara borom bindeef yi xam dan cant yadoomu gog dana sax musalliyan mbir mu may aji julli alal faqihi ci aji dégg ju fiq alhaadi kay aji jubal muhammadin te moo di muhammad wa kulli zijtihaadin ak képp kuy boroomu farlu nee maa ngi tàmbalee ci sant yàlla di ko cant cant goo xam ne amul fu muy yem di julli ci yonent bi nga xam ne moo xaman yoon wa te daa ko wone ci ndigalul yàlla kooku na mooy Muhammad yàlla na ko yàlla dool teraanga ak jàmm mook ay mbokkam ak ci saxaabaam ak képp ku farlu rek bay jéem a roy ca ñoom haza jàppal lii wa inna lii naka man saraftu walbatinaa xam mi sama yitte li aqdi nafril axdari yi jëme ko ci fas wesaru laxdar yi alxarami kadi ab sang li kay yekk woon ngir mu nekk tux fatan di ak may li kulli man ñeel képp koo xam ne araada namoon na xifzahu ak mokkalam min abnaa i zamani ci doomi jamono nee dama kat damaa jóg fas yéene way la nga xam ne moom la Abdourahman al Axdari yi wesaroon dañ mii ne ko al Axdari ndax bëgg ku bëgg na mokkal wesar wa te wesar neexuta mokkale noona way wi neexa mokkal ci yow lool ba mel ni ak may moo ottal di ren mbir ma may aji tuxal ngant maanaam may aji jégalu tey balu rek li kulli xibbarin ñeel jëpp fóore di adabin ku ci boroomi tegiin nax naxwin koy aji xam naxu wa aroobin ak xaroob wa adabin ak moxa jëpp fóore joo xam ne xam-xamam mat na nga xam ne xam na naxu xam na xaroob xaroob mooy fànn gi jàngale way ak lu ci aju xam na luxa mooy xam na làngu arab bu baax a baax daal bépp boroom xam-xam bu demee noonu rek may naa la boo gisee ci taalif yi loo xam ne jàpp nga ne du noona nga junj ca pegg ba ne ah moom kat nangam ak nangam nangam ak nangam loolu da ko wax rekk wax yi ne ku gisul dara ci boppam ak it ak woyof lu rek um woyof moom sëriñ bi wa asalu danaa ñaan allah yàlla rabbi kay sama boroom alxab wala nangu ka wal xaw na ak ndimbal la wat tawfiiqa tëppale ga wal wusoola ak àgg ga maa ngi ñaan saa boroom nag mu nangul ma te dimbali ma te defal ma tawfiiq te defal ma ak àgg wa an yàkkoona ak mu nekk raaxata sixaari di noflaayu ndaw ña waman ak képp koo xam ne ixtaaja aajo woon na ci moom minul kibaar yi ci mag ñi nee maa ngi ñaan yàlla téere bii nofal gone yi neex a dégg neex a ci ñoom mag ñi koo ci xam ne sam njàng foofa la toll yàlla defal la ko noona sammaytuhoo tudde naa ko bil jawhari ca wurus wa an nafiisi way aji sell wala way aji gànjaru gànjaru mooy foor rek fii aqdi nasril axdar yi ci fas wesaru al axdar yi ar raisi kay kilifa nee téere bi tudde naa ko al jawhar an nafis wurus woo xam ne wu sell la wu foor foor la njëgam yombut kon daal la al axdari wesaroon moom laa way ba noppi tudde ko al jawharun nafis awwaluma aji jëkk la nga xam ne aw jabahoo waral na ko arrahmaanu aji yërëme ji xataan ci lu dog bi nee ci lu dog mooy ci lu amul benn werante alal mukallafi ci mukallaf al imaanu moo di gëm nee na mu kàllaf day la ko njëkk war mu war caa taxaw temm mooy xam na muy gëme boroomam wéetal ko teg ko fa ko war a teg mu kàllaf nag bu dee ci at ci yoonu Maalik mooy ko am fukki at ak juróom-ñett ndaxam sax wér na ci yenn ngir yi ak ci at yi ci ay tegtal fukk ak waaye ci yoonu Maalik moom bu dee ci at moom fukki at ak juróom-ñett mooy tax a kàllafe waaye na am na yeneen mandargay kàllafe yoo xam ne bokk na ca sax kawarug naq ak am maniyu ak bu dee jigéen mu gis li ñuy wax baax muy reegal ñu koy wax mbërëg mbaa boog mu ëmb yooyu yëpp mandargay kàllafe la ku xës kàllafe nag moom na xam ne moo ko am juróom fukki at jëm juróom benn fukk jëm ab àtte lépp luy sant ma ngi rek loolu lañ ko sant war na caa taxaw tem la war a njëkk a taxaw nag mooy li mu wax njëkk wéral ak gëmam bu baax a baax bu mu ci xamul laaj ko ba am ci ab yóbbal su mata maarifatuma topp xam la nga xam ne yuslihu dana yewi na la bi ci moom fara idal ayni faratay jëmm jë jamihan boole seen fanta bi na nga yeewu da ci topp nag mooy mu daal di jéem a xam ni ko yàlla digal gàll ko ci aw loosam te kenn mënu ko koo defaale ñu koy wax faratay jëmb nga xam ne jëmb ju ne daa war a defal boppam bu ñëpp defee ba mu des moom it du tax jaanam wàcc loolu la ñu woy faratay jëmb loolu nag kon mu kàllaf war naa taxaw temm temm ci xam ko bu baax a baax ni ki julli juróom yi nga xam ne bis bu ne ñu ñëw juróomi yoon te di farata jëmb ju nekk war naa taxaw temm ci xam lépp la koy baaxal ni ki laab gaag yépp ba tey lu mel ni weeru koor balaa dikk wala mu caa dugg war naa xam lépp luy tax mu man a yéwénal koor ga na ko yàlla bëggee lu aju ci aj mbaa nat asaka mbaa bu dee bëgg takk soxna mbaa bu dee bëgg jaay ko jënd moom daal lislaam nanguwut jekki-jekki dugg ci dara te xamoo la ca lislaam wax balaa dugg ci dara rek faaw war naa xam la ca lislaam wax kon bu ñu nee sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen mooy rek la cay farata mooy rek loo toll ci sa dund bala nga caa dugg rek xam la ca lislaam wax doo sañ a jekki-jekki song mbir ci àdduna mbaa nga xam la ca lislaam wax loolu mooy farata ci xam-xam la ca des nag mooy topp téere yi di koy jàng ba ci ci ba mën caa gindee loole moom far bu kifaaya la maanaam bu ci ay benn benn taxawee ñoo xam ne ku soxla ñëw ci ñoom rek mu daal di doy waaye kenn ku ne moom war naa sàmm boppam lépp lu mu war a xam rek ca tollu ca mu xam ko di sax ñëwuñu ko nga xamandoo lépp fi saasay saasa moom jaru ko lislaam ak jàpp ndal la nga xukumi saw mi niki àtte koor wa tahaaratin ak laab salaatin ak julli fardan boo xam day farata wa naflan ak naafila wa ka xajjin ak niki aj wa zakat nat asaka li mu la waxoon léegi ne la lépp luy farate jëmmam ko war a xàmmee moom la misaale atteb koor ak laab ak atteb moo xam day julli farata moo xam day naafila wala lu mel ne aj ba asaka lu mu ci toll rek na taxaw temm ci xam ko bu baax a baax loolu waru garu la suma àll yi war na ci mu kàllaf ay xaafisa muy wattoonte maanaam muy sàmmoonte xalaa xudoodi rabbil xarsi ci dayali borom xaras jàlla màgg na waxalaa te mu kawe wa yaqifa te muy taxaw inda amrihi fa ndigalam la wa nax yi ak tereem ga nee mu kàllaf kat dafa war a sàmmoonteeg àtte yàlla tëral ci kaw suuf ndax suñu borom nee na binduma doomi aadama yi ngir fo dama leen bind ngir ñu wéetal ma te topp ma te itam rëdd na fañ war a yem xam ne sañis koo weesu loolu mooy ay daytalam mooy ay atteem kon nag mu kàllaf daa war a taxaw temm ci fu ko yàlla digale rek siin mu nekk ca fu ko yàlla aayee du ko fa gis mukk-mukk wa an yatooba ak muy tuub ku laxiinin ci bépp waxtu moo tarifan mbir mu muy aji tudd bàkkaar li rabbihi ñeel boroomam subhaanahu sore la naa ko lépp leelul ci moom min qabli an yekkoona ci njëkk muy nekk saaxitan di aji mere alayhi ci moom fi zamani ci jamono mu kàllaf kat nee na fu mu toll war nay tuub di dellu ci boroomam ndax daanaka doomi aadama moom ñàkk lu muy tuub bariwut am ci moom lu ci ëpp rek dañuy ëppante waaye kenn ku ne rek ñàkkul loo xam ne war nga koo tuub sa digganteeg sa boroom loolu ëpp ci doomi aadama yi kon nag nee mu kàllaf bi nay farlu ci tuub te bu fekkee xam na ay bakkaaram mu di ko tudd ci kanam boroomam di ko jégglu di wax boroomam ne ko man kat maay sa jàmm bu sàggan bi maa nangam maa nangam ma te gaawee ko bala ko yàlla mere ndax bu ko yàlla meree xol bu day wow ba nga xamee ne du mën a jubati ci ak tuub loolu nag moom ëpp naa def wa min shurutiha na ci sarti tuub ya nadaamatul réccu xalaamaata la nga xam ne faatahu raw na ko minal maxaas yi ci ay mooy mus jalan lu mu man di doon tuub nag daa ay sart bu ci njëkk mooy réccu lépp lu mu defoon te neexul yàlla koy rëcc ci kaw rek maa ngi doon def lu naqal yàlla du ko rëccu ci jële naa ci mooy yàlla gi wéradi mbaa ñàkk sa alal mbaa yu demee noonu déedéet da koy rëccu ci kaw rek maa ngi doon def loo xam ne daal neexul saa borom wa niyatun ak yéene fii maa ci la nga xam ne baq yi des na minal xumura ca dund ga xadama xaw di ñàkk a delloom nga li kulli maa jëm ci lépp loo xam ne yaduru dana lor ñaareel ba mooy na fas yéene li ko des ci dund du delluwaat ci mukk mukk ci lii muy tuub mooy lii mu xam ne ak mooy la ba di ko rëccu ak di ko tuub ne yéene lu yàgg-yàgg du ca delluwaat mukk mukk bu ko seytaane bakkanam manee ba mu delluwaat ca itam mu dellu yeesal tuub gu sell rek te bañ a naagu doon di sox bàkkaar ko def ci bis bi ñetti yoon ba ñeent mu tax mu naagu saa yu ko defee rek na rëccu rëcc gu sell tuub gu sell rek yàlla mën naa def yàlla taw fi xale ko boobee moo ciy mujj ci coobare yàlla wa an yakoon ak mu nekk taarikal xisiyaani di aji bàyyi mooy ga in kaana dem nekkoon xaasiyan di aji mooy bila tawaanin ci lu yeex bokk na ci sarti tuub bu fekkee da nga day tuub bu fekk yaa nga woon ca mooy ga nga bàyyi ko fa saasay saasa ndax boo maa ngi tuub ba noppi nekk ca mooy ga day mel ne kon kuy reetaan yàlla bokk na ci gën a aay nag moom mooy di bëgg a wax loo xam ne wóor na la ne aay na sa xel xamal na la ne lii kat aay na nga ne ah yal na ma yàlla jégal di waaye nangam te lu tee nga jàll wax ko loolu moom naa def lool lool wala loxoo déddi ko ñeel moom mu kàllaf taxirun yeexe aw tasabburun wala mu ñandiku taw bët ñeel tuub wala yaqulu te du wax ne asbiru damay muñ rek xata hadani ba mu jubal ma saaxibul xufraani boroom jéggal ga fa inna zanaka lii xalaamatul xidlaani mandargam gecci la maxa shaqaawati ànd ak texee di waray indi xal bi ak tërib xol tere xol bu tere lool indi naka man amudu danaa muslu min ci yooyu yaar bi rabbi ci sama boroom nee na mu kàllaf kat warta jekki di yeexe tuub ba am lu cee déggaliku naa damay bàyyi ba nàngam ni ki damay bàyyi bay mag ndax lay gone laa su ma tuubee du ma mën a wéy ëpp naa def ndax xamut dana dund bay magam déet bu mu jekki itam di wax naa yàllaa naragul rek mu jub waaye bis bu ko naree danaa jub déedéet ni nga xamee ne tey ji boppam day metti mu sibru te taxaw temb ci faj ko xam na ne yàlla ko def te bu neexee yàlla mu tane mu daal di wér waaye day sabablu daf saasa lu ko wérale noonu la war a def tam ci wàllu gëm jëg topp gi saa yu gisee rek rawante na jàdd yoon nga tuub fas saasa waaye bu jekkee di wax naa daay muñ rek ba yàlla gindi ma ma jub daa neexul yàlla rek bu ko neexee ma aw ci yoon wa loolu moom mandargam gecc la maanaam mandargam ñàkk mandargam ñàkk tawfiixu yàlla la mandargam toroxte la mandargam texeedi la mandargam xol bu tëree tëree la boo xam ne rek neexatut fóot bi mu tuddee texeedi ak tëree xol bu tëree la boo bu tëree daal di yàlla na ma yàlla musal ci yooyu yaar waxee ko saaniki nii raddul mazalimi delloo tooñaange ya jamihan mbir mu ñu mboole seen yoo xam du def na ko min shurutiha mu bokk ci sarti tuub indal mutihi fa aji topp ja li annahu ngir naka moom fardun farata la fa man tarakahu koo xam ne bàyyi na ko mu xaffifan mbir mu ñu aji wayefal ko faqad xasaa kon moy na malikahu boroomam bu fekkee li ngay tuub sa diggante sa borom rek la moom ñett sarte ya nga waxoon mooy sarte mooy rëcc ko te bàyyi ko fa saasay saasa te yéene bañ koo defati mukk mukk boo ci boolee nag léegi am lu seq ak sa moroom nag kon nag nga cey boole delloo tooñaange la maanaam bu fekkee amoon nga kenn àq bu fekkee ameloon nga kenn àq ci doomi aadama yi bu fekkee da nga day tuub ngay fexe ba delloo ak joojee delloo àq yooyu nag farata la joo xam ne mat naa sàmm bu baax a baax bu fekkee delluwoo ko te jiitam te kooku bàll la ko bu tax taxawee ëllëg ci bis penc bu doy waar boobee faaw da ko ko fay daañu wax ci sax bu fekkee amoo yiwoo ko fay la ñuy jële ay ñaawteefam moom teg ko ci sa kaw ndax lu wecc ci wam ko waroon a jox te amul tummal mazalimu topp tooñaange ya ata dikk nañu xismay ni mbir mu ñuy ñaari xaaj am waalan ay alal enradan ak ay der bi xayri may nin ci ludul fen nee na tooñaange yi nga xam ne nit mën na koo tooñ moroomam benn rek muy alal wala muy yàqu der waaye mënta génn yooyu yaar mu daal di wax nag naka lay delloo tooñaange yooyu fal yar dut na delloo al am waala alal ya lil arbaa bi jëme ci seeni woroom in wujjidoo ndem fekkeef na leen ak daxara ci jamono bi lartiyaa biñ ci ludul benn sikki sàkka nee bu fekkee àqi alal la te boroom alal jàng fa kon danga koy delloo alal ji rekk moom bu noppi jégglu ko nag loolee nga téyewoon alalam ba booba tuma isaalam yoo jadoo topp ndeem fekkee fu leen ñoom ci jamono fal yar dut na ko delloo li waar si moo jëm ci seen way doon bila tara dudin ci ludul benn déng-déngi su fekkee àqi alal la te borom alal ji nekku fi kon saye boo seet ña ko war a doon nga jox leen ko ndegam alal la bu fi nekkut ña ko war a doon ñoo moom alal ja tuma isaalam yoo jadoo topp ndem fekkee fu leen ci jamono te saddaqa kon mu saraxe anhum walis ñoom bi xaa ci alal yooyee kazaliki ni xakaa ko nettalee man ka nga xam ne xaqaqa dëggal na buñ ne man xaqaqa dañ cee jublu ka nga xam ne enquête na masala yi bu baax a baax ba am teg leerlu wóor a daa wax ne ndegam àqi alal la nga bëgg koo delloo boroom te boroom nekku fi nga seet ñu ko war a doon ñu ko war a doon nekku fi kon saye boo saraxeel ko ko dana jot ca tuyaaba ja insha allahu taala noonu la ko ñu xam dëgg-dëgg waxe wa yastaxillu dana sàkkoo daganlu mbaa dana jégglu kulla irdin bépp der akala bopp lekkoon na ko bi xiibatin ci jëw aw xasafin wala xaste aw mine wala ak ŋàññ jalaa goog feeñ na in kaana dem nekk na moom kookee xaadiran de aji teew nee na yàq derub jaambur moom ñu lañ koy delloo ñu lañ koy defee mooy bu fekkee ne kookaa ngi teew te xasoon na ko dégg ba mu naqari ko moo xam na nga koo jëwoon moo xam na nga koo xas moo xam na nga koo ŋàññ xas xas fu di cëpp dañ koy jëmale ci tuumaal ko ci dox tànki caaxaan ni ki njaalo yooyu mbaa dàq ko ci ne ko diw juru la yu mel noonu ci lañu ëpp jëmale xasfu bu fekkee kookaa nga fa nag te dégg na ko ba naqari ko ba noppi moom da ngay dem jéggalu ko ne ko ay la yéen maa la tooñoon jéggal ma ko bu fekkee nag moom dégg ko woon nag te boo ko waxee dana ko naqari ba nga xam ne boo tuut bu dee jullee sax du teewlu kon doo ko ko wax ndax kon ñaari musiba lay doon kon say boo bari jéggalu si diggante sa borom te rëcc bu baax rek tax yàlla fayal la tooñaange googule wa amma in fuqida ndaal ndeem ñàkkeef na ko wala yukk siran nay baril xayran aw yiw daxal la ndax lee moom ye jidu dana am xëy am dara yu waddi cosaan la mooy yu addi loolu dana mën a jooxe dana mën a faye àq kullihim àq képp ci ñoom bi ca loolee mustaxfiran mbir muy aju sàkku njéggal wala yaa jug te na yaakaar xaf warab bi jéggale boroomam ki nga xam ne moom nga yàq ab deram bu fekkee ne yàlla def na nekku fi ni ki faatu na moom doo mën dem ci ay mbokkam naa leen tooñal naa ko yàq ab deram baal leen ma ko déedéet ndax loolu bokkut li ñu doon xam nga moom du alal su boobaa menn pexe amu ca mu may di bari la jéggulu sa borom di ko sàkkul njéggul moomee moom moomee nga tooñoon ci yàq ab deram ba noppi nag farlu ci def lu baax loo xam ne bu ëllëgee rek bu ngeen tasee bis penc te jéggalu la ko fekkutoon yàlla fayal la ko itam nga daal di koy fay rek loolu rek moo ci des waaw nee nañu nag boo ko rëccoo bu baax a baax di ko ñaanal foo toll rek yàlla mën naa def sax loolee nga koy ñaanal day mujj tuyaaba ñaan nga baree bari ba mën a fay loolee nga ko amee loon ci àq ba des sax far kon nag bul fàtte jéggul yàlla boole ci tam ndax saa yoo tooñee mbindeef rek tooñaale nga yàlla ndax yàlla bu aaye woon nga tooñ mbindeef moomee su boobaa ñaari tooñ moo cay tase waxi war na ci mukallaf ak wattoom al lisaana làmmiñ wa min fahshaayin ci aw ñaawteef wa min qabihil qawli ak ci aji boni wax wal miraay ak werante da lay waxal nag yenn cër yi nga xam ne yu doyo doy waar lañu war nga leen a sàmm bu baax a baax wattu cee mooy làmmiñ ku doyo doy waar la da nga moytu wax ci sa làmmiñ lu ay moo xam aw ñaawteef la ni ki leen ru saaga wala tudd bunt suuf mbaa ab yi ci jaar ci dugg ba te mën ngaa bañ a ak xeet werante yépp na nga ko moytu ci sa làmmiñ mu wax la luy luy wax bu ñaaw xaqiqatu xaw li dëgg dëgg wax alxabiyi ji aji bon mooy ji aji ñaaw kulluma mooy jëpp joo xam ne fekkoon da nga nekk daaxa yaa indi borom kersa min bu ci moom faax la man na nga xam wax ñaaw moom nee na yow mën naa xàmmee jëpp wax joo xam ne war nga koo rus a wax boo dee kuy rus daal moom boo ko waxee da nga rek jooju wax rafetul say boo moytu ko bu doon rafet rek moom doo ko rus a wax teewul nag wajaw wesoo dagandal nañu tasrihahu ak wéralam muy xampati ko ci digg ba xindal bali di fa aji gàtt xel ja inkaana dem nekk na laa yafhamu du dégg talwihan ak junju yu fiidu kook dana jariñ nee na bu fekkee ngay waxal moom daa gàtt xel ba nga xam ne faaw nga jaar ci digg ba waxe baat ba nam doon dëgg dëgg mooy tax mu xam ko waaye boo ko làq-làqalee du ko xam kon su boobaa daañu la may nga wax ci digg ba ndax loolu mënta ñàkk nee na tey booy jàngale baatu alwatu alwatu laal lañ koy wax te fekk na mooy jote góor yu jigéen ci sowukaay am na nu ko wala fi waxee neneen lu bokk te noonu lu gën a xëppati waaye ndek boo ko ne alwatu laal mbaa nga ne ko joteeg góor yu jigéen ci sowukaay yi dana ko xam kon bu jaar ci waxin wa nga xam ne weneen la wu day waar loolu lañ bëgg a wax waaye bu fekkee nag moom te da koy jàngal te li fekk ci dëgg-dëgg yi koy waxee ci wolof du ko xam rek lu loola njàng-njàng soye ba waxee ko noona xaqiqatul miraa i dëgg-dëgg inda man fakka nga xam ne dara xam na juhuudu xaqin mooy weddi dëgg wax dama xas zahara ci gannaaw ba mu feeñee wa dafahu akuk jiñam bi baatilin ci ak neen wa baashin ay wa baashin ak moo nekk ci way wi li kurhi xafdil jaahi ngir sib suufeel daraja indal naa si fa daa wax ne werante mukallaf mu ne war na koy moytu werante nag nee na mooy dégg dëgg ba noppi nanguwoo ko bu ñu waxee rek nga teg fa leneen ndax bañ rek ku ne yow mii daal dangaa gàtt am xel sa xel mi rëyut ki ngay waxal moo la ëppum xel mbaa yi demee noonu